maa ngeen di nuyu ku ci nekk sa tur ak si sa sant di leen remercier si teewaay bi ngeen teew tey xam naa ne que am ngeen ay activités yu bëri yoo leen mën a def xam na mënoon ngeen noppalu ndax tey la dimanche mais maa leen di remercier si teewaay bi ngeen teew tey di remercier tamit euh, bureau association bi euh, pour lépp li ñu def pour euh, mission bi déroulé wu dans de bonnes Euh, maa ngi remercier tamit euh, les femmes l'association des femmes euh, sénégalaises qui sont ici si accueil bi ñu ma accueillir démb ñoo ma invité reer et ça s'est très bien passé maa ngi leen di remercier bu baax a baax di demander sama sœur madame Goudiaby mu nekk sama interprète auprès des autres sœurs de l'association di féliciter waat bu baax bureau bi bu nekk fii si liggéey bi muy def boobu ba léegi ndax comme ni ngeen ko xamee amuñu fi ambassade fii ci Argentine euh, Brasilia la ñu nekk di jéem a def lu ñu mën a def mais lu ñu ti def dafa am fu mu mën a yem parce que man mi tant que officiel lu fi am na ay démarches yoo xamante ne man mënuma ko def mun naa jàkkaarloo yéen jokkoo yéen di seet li si ni ngeen euh, nekkee ak yan ngeen mën a nekkee mais démarche buy demander dem ci administration bi mënuma ko parce officiellement. kenn accrédité wu ma fii Brésilia la sama liggéeyam mais comme xam nañ ne que sénégalais yi dañu bëri fii loolu du tere lu ñu mën a def ñu def ko pour jàppale leen te loolu moo doon sama tànk yi fii dama ñëwoon pour am premier contact ak yéen parce que bi ma fi ñëwee Brésilia léegi peut léegi mu mat un an ma tëgul te boobu léegi maa ngi def tournée pour rencontrer association yi fu ñu nekk xamanteex ñoom seet si lan la ñu nekk xam yan mooy seen ay besoin pour seet naka la ambassade bi mën na leen assister. loolu tax euh, bi ma ñëwee première euh, premier problème yi ñu posé woon mooy affaire passeport yi donc ci laal njëkk a def lu ma mën pour que ñu mën a renouveler passeport sénégalais yi nekkoon euh, aussi bien en Argentine qu'au Brésil en réalité sax bi ministère de l'intérieur di envoyé pour première mission bi boolewu ci woon sax Argentine 15 jours la ñu may policier bi pour mu ñëw def mission renouvellement passeport mais Argentine bokku ci mais comme xam naa ne ko boo leen amul passeport wala ñu am passeport tamit mu desee tuuti amuñu visa ñëw Brésil dafay compliqué ma def tout pour que policier bi ñaari yoon yi fi ñëw yépp ñu ñëw ba Argentine pour defar mission bi donc ñu ngi wax waxu euh, euh, Moustapha mi ngi wax waxu euh, créer fi centre de reproduction pour carte d'identité ak passeport mais da nga war a xam ne que pour ministère de l'intérieur jël yenn décision yu mel noonu xam ñaata sénégalais ñoo fi nekk lu am importance la parce que immatriculation bi benn bi loolu loolu mooy importance am parce que mënuñu toog di wax rek ñun ambassade sénégalais dañu bëri sénégalais dañu bëri ñu ñu ñaata lañ duñu xam amuñu chiffre amuñu dara lu ñu estimer mais lu fekk ngeen di euh, euh, immatriculé wu day tax ñun bu ñuy défendre seen i cas ñu mun a wax ñu am fu ñu basé wu ne leen tant de carte consulaire joxe nañ ko am na tant de sénégalais yoo xamante ne am nañ soxla yi ak soxla yi donc loolu bu moo ko deful woon par exemple ñaari mission yi ñu am si biir année bi waxuma sax ba moytu sax xëy na benn bi duñ ko am mais il a fallu que ma insister wax chiffres yi parce que boobu ba léegi ñu ngi def euh, tournée pour euh, euh, sénégal sénégalais pour am idée ñaata ñoo fi nekk te ba tey sax xam nañ ne que nombre bi ñu am du ñëpp am na ñoo xamante ne ba léegi ñu ngi ci biir dëkk bi muy fii wala muy Brésil ñoo xamante ne ba léegi amuñu jot pour ñoom amul importance li may wax brésilien rek ñi sénégalais yi nekk laa leen di wax. normalement loolu ñu ngi ko bind si seen ginnaaw carte d'identité seen ginnaaw passeport li ñu ci bind mooy sénégalais bu dem à l'extérieur si euh, biir euh, euh, entre trois mois yi mu fay def quatre-vingt-dix jours yi bu ko xamee ne dafay toog ci dëkk bi li mu war a def mooy dem ci ambassade bi ci gën a mu déclaré wu wax ne maa ngi fi bërëb sàngam laa dëkk lii mooy ay sama contact pour boo leen soxla protection assistance ñu xam ne yéen a ngi fa mais loolu tam lu mais li am en réalité mooy sénégalais bu ñu demee extérieur li ñuy njëkk a lijjanti mooy am ay papier pour mun a liggéey d'accord loolu mun naa comprendre mais euh, nemmeeku ambassade bi tam ci la bokk parce que mooy permettre après yeneen revendication boo leen di laaj si ëllëgee ñu xam ne tant ak tant de sénégalais ñu ngi fi war na mën a justifier ñu def lii. mais toog ñun ambassade bi wax ne que yónnee leen di sénégalais ñu ngi fi ñu ne ñu ñaata la ñu xam loolu yombalul suñu suñu suñu suñu liggéey moo tax le fait ambassade bi amuñu fi ambassade amuñu fi consul général mais n'empêche am na seen euh, soxla yu bëri bureau bi ñu ngi koy ñu ngi koy def moo tax ma bëgg a félicité waat encore une fois monsieur le président ak tous les membres du bureau xam naa ne bu lu nekk ñu ngi koy def euh, xam naa ne ñu ngi am problème mu justice. Moustapha wax na sànq bu ñu amee ñu ñuy dem devant le juge ñoom ñooy dem pour def interprète kenn fayu leen ci loolu ñuy def dañuy bàyyi seen liggéey volontairement dem jàppale seen mbokk sénégalais à part xam naa ne merci bi leen ngeen bi ngeen ciy dégg amuñu ci leneen ambassade bi fayu leen association bi fayu leen kenn fayu leen donc encore une fois maa ngi leen di remercier bu baax ci liggéey boobu ñu def parce que travail yu relais la boo xamante ne xëy na administration waroon na ko mën def te administration bi nekk fii Euh, bu loolu weesoo euh, ministère de l'intérieur bu yónnee policier ne ko pour mu dem defi di renouvellement passeport ci kayit bi ñu koy envoyé Brasilia lañ koy wax ne na dem parce que ambassade bi mooy représentation administration bi te si administration lu ñu ko yónni duñ ko yónni feneen administration bi lañ koy yónni mais comme xam nañ ne que ça va être très compliqué pour sénégalais yi tasaaroo ci biir Brésil wala nekk Argentine ku ci nekk jóg ñëw fekk si policier bi Brasilia loo tax ñu doon def benn effort pour wax ne que bu bu association yi nangoo euh, police ñëw fekk si leen fi ngay nekk defar passeport jot na fi am yenn problème euh, ba ñoo xamante ne dañ ne woon du ñu cotiser ma ne leen vous n'êtes pas obligé du obligation da ngay volontaire association bi day volontaire ñu cotiser policier bi ñoo defar leen volontaire ñu ñu bàyyi policier bi toog Brasilia ñoo ñu ñëw fekk si ko Brasilia parce que foofu la war a nekk en réalité mais problème boobu musul am ak waa Argentine saa yu ñu leen waxee ne mission mi ngi ñëw date sàngam dina disponible pour ñëw Euh, association bi day organiser defal yëpp comme il se doit et que euh, la mission se se se déroule toujours dans de bonnes conditions donc si loolu encore mag lañ leen ci félicité bu baax a baax chaque fois damay joxe modèle nekk ne waa Argentine ils sont très bien organisés saa yu leen waxee benn affaire bu ñu mën a def ak ambassade bi on le fait dans les délais et ça se passe très bien ma leen ciy félicité waat encore une fois. léegi euh, Moustapha wax na tamit affaire vote bi. ak consulat général affaire carte d'identité encore une fois loolu yëpp may dellu siwaat ci immatriculation bi parce que même pour ibbi benn consulat bu ndaw dañuy wax kenn loolu mooy réglementation bi nañu ibbi consulat fenn foo xamante ne amul moins de 500 sénégalais en général léegi ñu ngi seet yenn saa yi dem ba 200 mais en général fu am 500 sénégalais concentration 500 sénégalais la ñuy wax ne nañuy ibbi. waaw foo xamante ne nag xamuñu ñaata sénégalais fi ibbi ñun amuñu argument pour pousse ministère de l' intérieur pour mu def tout pour mu ibbi donc encore une fois muy commission pour euh, pour vote yi muy ibbi consulat général muy commission pour carte d' identité nationale loolu yëpp il est important que ambassade bi xam le nombre de sénégalais qu'il y a dans telle ou telle zone pour mun a organiser mission yu mel noonu donc euh, du lu bees loo xamante ne dama koy doog a dégg parce que si point yi ma posé woon la bi may doog a ñëw. affaire euh, passeport yi d'abord donc sotti na euh, beneen bi moo doon pour euh, organiser ay élection parce que ambassade bi ñu ko ubbee 1960 ba léegi Brasilia musuñu organiser vote pour sénégalais yi nekk en Amérique latine parce que tamit ce qui est vrai mooy au départ par tuuti tuuti petit nombre ñoo doon ñëw ay étudiants lañ duñu woon bëri. du chiffre boo tax buy buy justifier le fait que ñuy ibbi euh, euh, rek euh, organiser ay vote def centre de vote mais léegi la situation a changé aussi bien en Argentine avant sax Argentine def naa si lañ gënoon bëri léegi au Brésil def naa ne sénégalais yi Brésil la ñu gën a bëri mais ba tey am na ñoo xamante ne ils sont entre les deux am na xam na ñoo xamante ne peut-être si yéen ñi dañu immatriculé fii immatriculé fële donc tamit loolu tamit ay ay situation yoo xamante ne du xam chiffre exact parce que double immatriculation te kenn du ko déclarer mais euh, le fait que ngeen di dem volontairement di immatriculer wu def ñuy faciliter bu ñuy demander pour ni defar centre de reproduction de passeport wala centre carte d'identité wala affaire vote mais affaire vote bi je crois que yaakaar naa ne dina sotti incha allah maa ngi ci woon euh, depuis daaw bi ma ñëwee donc décembre ci laa ci bindoon bindaat ci encore en janvier ou février. te maa ngi koy suivre ba léegi yaakaar naa ne euh, incha allah prochaine élection wu 2019 yi dinañ ci mën a boole diaspora bi nekk Amérique latine donc Brésil ak Argentine euh, bu ñu loolu bu ñu ma ko confirmer le loolu mooy année prochaine 2018 bu ñuy defar euh, programme pour commission yi def tournée Argentine ak Brésil dinañ ci bokk donc dinañ ci maa ngi ci lu ma lu ma sujet bu ma bu ma tenir la à donc maa ngi suivre yaakaar naa ne dina sotti incha allah euh, encore une fois maa ngi leen di remercier ci teewaay bi di fàttaliku rek ne que li première euh, visite la woon pour contact du loo xamante ne président wax na ko sànq lu ma war a def obligatoirement parce que kenn accrédité wu ma fi officiellement ñëw rek pour euh, nemmee ko yéen la xëy na dinañ continuer travail bi ñu commencé woon boobu def ba léegi. Euh, xam naa tamit déplacement wu euh, Diagne bi nga xamante ne mooy charge des affaires consulaires mooy gën a yomb dans le futur mais dinañ gën a continuer di travailler euh, maa leen donc di remercier encore une fois di leen wax ne que bu fekkee ne da ngeen am ay question yoo leen mooy poser par rapport ak seen nekkin fii wala ak lu ambassade bi mën a def par rapport ak sénégalais yi nekk Argentine je suis prête à répondre aux questions merci beaucoup.